ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay laa ilaaha ay waay ay joomi naa ay waay waay waay waay waay waay waay waay waay ndeysaan ay waay waay waay waay waay waay waay waay waay jigéen kenn du ko toroxal jigéen kenn du ko toroxal ay yow seedal ay yow seedaatal ay waay dolli sa seed jabar ji nga xamante ni lii mu yor na ko sa këram sëyal ko ba sëy fu dara neewul a Gaye 2 daal di koy téye di ko muqi di ko muqi di ko muqi ba yaram ba plaqué Balla Gaye 2 as tuut mu rey ki nga xamante ni mooy jabaram ba ak ñi nga xamante ni ñooy mbokk jabaram ja dama bëgg nu mu demee lii moo fa def ah sama baa ngi sone waay ah kii na sama rakk la rakki jàmbur ah <laughs> rakki jàmbur allo yow waa su ma la baax ci jooy ba doon wiiri wiiri yaa ngi toj àdduna de ah waaw waaw waaw waaw nga ne laa ilaaha illallah loolu Balla Gaye daa ñemewu ko loo may wax ni nga ne Balla Gaye daa indi jigéen ci biir kër gi. laa eh, ah, xoolal eh dama ne xoolal rek sama xaaral maa koy lijjanti borom borom dëjëm mën naa jooy dëjëm dana xam ne Balla Gaye 2 jamonoy sondel la ba lamb bu tàmpet a ba Balla Gaye 2 commencé taal léegi nag Balla Gaye 2 ci doxal la jóge eh dama ne bul wax coupeel maa ngi ñëw léegi dafa dëkk ak moom sab-sab xam nga ne tey danaa yëngal fi nga a ni mooy géeje waay eh rakk sama taxawal rek may ma ñëw ah tamit man maa koy jooy man maa koy liggéey di sama boppam sab-sab laa la wax les xarma ndaf monte si vous avez des hypertension ma ci suusal combat bu rëy bi diggante Balla Gaye 2 ak nga xamante ne ni mooy Boury Bathily en direct ay yeew bi ku ko wuute wuute nga lu rëy Sénéwood Balla Gaye 2 génn naa la wax génn yow Balla Gaye 2 dama laa seen ba seen la fu dara nekkul yow Balla Gaye 2 amoo looy def di ma jëndalee jigéen yow Balla Gaye 2 ma nga ñàkkee amoo dara la àggatu ko eh, eh, eh, la ferme la waaye ferme wu ma ko dama koy ñaan yi ma ubbeeku yow Balla Gaye 2 ma yow Balla ah. Gaye Balla Gaye 2 bu ma lay seyal boobu dara waaw ma muñal la sëyal la tey nag daa boo lépp looy def di ma jënd ak jigéen ah. yow baa da ay eh, dimbale ma du ma la may eh, eh, bul xool laa ilaha illallah doomi mbër jàngal bëre dama ne doomi mbër jàngal bëre yàgg yàgg lay daan ah, waaye dama mbër jàngal bëre man dama mbër bëre yàgg sungul man nga ñuy teg diir eh teguñ na diir yow yaa jël xale bi di ko ko sa biir néeg bi Balla Gaye de may ma. Balla Gaye de man dimbale mu yar moo jeex. gis naa li nga ñu dund ak man. Eh, dimbale ma waa Balla Gaye de ma. wuy ma ma sa laa ilaaha illallaah Balla Gaye de laal ma ma koket la ba nga xam ne koket naa. maa dëkk ak ci xam. Eh. dimbale ma morom ah. bu ma wax ngay wax laa la wax. bu et puis sax maa tay xale bi dama koy tax ba mu neex. ba pare ngeen doon taxaw dara ba pare ngeen si mën. ba ba waaw bu mu dóor rek. ba pare génn sama kër laa la wax. waaw bu yeboo Balla Gaye doo bu yeboo waaye daal dóor doo ma ko def waaw maa ngi dem nag waaye Balla Gaye doo doo ma dóor. doo ma dóor sëñ naa la nag ba sëñ la fa dara newul waaye rukkoo bi nga ma dóor ak ndéññeen bi nga ma dóor naa la yóbbu police Balla Gaye dóor. maa doon ngeen doon. bu yeboo maa la wax loolu bu yeboo waaw dangaa foog ne dóor bi ma dóor yow nee na la xarit teguma la ko fii la la ma am ma seen tee dóor la ba sax ñaar mi demee ko maa la foroo de maa la foroo de ma la ko yow yow yow yow tey nga mën a wax tey nga mën a wax. waaw bu dee la génn fii wala mën a fi. waaye damaa la gën xam. génn fii laa wax xam laa wax. Eh,